lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko ñu jublu ci li ñu bëgg a wax rek incha allah mën a Cheikh Oumar euh, li Seyda Hafsa hafizahullah wax moom mooy dëgg li mu wax ci Dramé loolu mooy dëgg te loolu ñun ay seede lañ ci te tudd nañu ci macha allah euh, al amin nag euh, li may wax ci moom lu gàtt rek la mooy ay jeunes yi nga xam ne formé na leen tey ñi nekk ci réew mi nekk partout dans le monde di liggéeyal lislaam te ñun ñii ci la ñu bokk tey ñun bu ñu demee ba nekk ci terrain daawa di woote ci lislaam di dem ci média fu nekk gannaaw yàlla moom la depuis 2001 la ànd ak ñun te bàyyiwuñu benn yoon nekk ak ñun formé ñu ci côté bu nekk nag daan génn këram ñëw fekkuñu di fanaan ak ñun di ñu jàngal di ñu orienté di ñu xamal lan mooy daawa ba pare yamul foofu di fanaan ak ñun di naafila di julli di ñaan borom bi subhaanahu wa euh, kon moo tax su ñuy wut yiw tey ñii naan tey nit dafay investir si loo xam ne daf koy jëriñ addinaam wala allaaxiram ci li mel ni lañu mën a investir pour mu jëriñ ñu àddina ak allaaxira ndax tey fu ñu taxaw wax ci lislaam la lépp lu ñuy def ci lislaam yàlla dina ko si bindal yiw kon moo tax foofu laay tëjee sama kàddu waaye nag di sant imam daam Ndiaye bi nga xam ne lépp lu ne ci daraame moom itam moom moo ko def ci moom waaye dama juum daam Diop la kon euh, maa ngi jox ki nga xam ne moom moom Cheikh euh, Oumar Foutiyou Ciss mu am benn euh, xasida boo xam ne daf koo bind ci al amin mu jàll ko salaamaaleykum wa rahmatulah. d'accord d'accord lastu ana man yatakallamu fa shi'ru man yatakallamu anhu idan ajiju shi'ri fi madhi al amin in ajja shi'ri fa kullu al qawmi yastami'u إن سار أيضا كذا الدهر يتبع يسجل أحواله ويقتنع يلازمه كطالب وينتفع وكان ذاك قرونا قد بلا يقع في ذكرها خبر للناس يرتفع زماننا قد شاد الجهل يبتدع وساد أيضا على قوم ويصطنع تراهم في فياف الحزن وانخدعوا يرجون مغيث قوم صاح يندفع يعانقون حطوف الموت قد فزعوا مسخ ومسح أيا جهلا ويفتجع فالرعد من سحب للعلم يرتفع رايات أمن مع الأمان ترتفع أنا الأمين نسيم العلم أندفع أنا الأمين جسيم الجهل أبتلع الإسلام جوي jug leen daalal ko